jaawartu bil furxaani rabbi al muin auzu billahi min seytaani rajim malaktu nafsiya wa zahzahtu l ain jaawartu bil alhamdulillah naxmaduhu wa nashkuruhu wa nastaciinu bihi wa natawakkalu alayhi wa nusalli wa nusallim ala afdali xalqillah sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi bokki taalibe yi fi teew yépp bokki jullit yi noo ngi jégglu kàddu yi ñuy yëkkat ci kanam sunu kilifa bu tedd gi di leen nuyu di fi ci njëlbin gi nag ñuy wax ni ñu ngi ànd ñun ñëpp ci njiitam moom tedd mi di nuyu Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba nga xam ni jataayu murit bu am lépp ci moom lay tàmbalee ci moom lay dellu noo ngi koy nuyu di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ba mu yeggale ay naalam yim naalal sëriñ Tuubaa yëpp nu fekke di ko ñaanal mboolem njabootu sëriñ tubaa gi nekk ci ginnaawam góor ak jigéen mag ak ndaw di ñaanal taalibe yëpp itam suñu borom defal leen tawféex di ñaan ci barkeem moom Cheikh Ahmadou Mountakha mi fi nekkal sëriñ Tuubaa lii nga xam ne moo dugg ci àdduna si suñu borom génn ko fi ba mu set wicc def fi jàmm ak salaam ak aafiya ci barke borom Tuubaa mi fi nekkal te nekkal ko fi nekkin wu rafet gannaaw loolu nun suñuy kàddu du ci bari xanaa dëggal rek di sama ñaari bokki taalibe yi wax muy sëriñ Bàkki Abdourahman ak sëriñ Seex Buso man dama fee teew teewal fi ñi nga xam ni ñoom laa bokkaloon nekk ci kër gi sëriñ Faadilu indi woon nu fi jox nu sëñ alaaj jaxate mii nekkoon ci ronuk sëñ am sëtu jaxate mi nga xam ne moom mooy lépp sëriñ Touba man la fa jëkk a yóbbu ba ma fa yóbboo ma am fa ñaari at teguma bët ba ñetteel ba sëriñ alaaji bàyyi ma ma dem màggal yi ca kër ga dem nuy ji sëriñ bi ba ma demee ba waxtu dellu jot sëriñ bi laaj ma jàppoon ni maa nga maa nga mbaakool fa mu daan yóbbu ñi daan yóbbu samay kilifa daal ni ah waaye moom kat fàtte woon naa ni fii laa ko indi fii laa ko yóbbu kër kër sëñ as jaxate laa ko joxoon am sëtu daal ni man ndeke am naa mbaakool ci dëkk bi ñaari at a ngi ni gis tëgguma tëgguma tëgguma la bët dootuma yóbbu kenn mbaakool am nag mbàkkul ci dëkk bi daal di indi sëñ Aliou indi fa maam sëñ doomam indi fa sëñ Xabbaan indi fa sëñ Cheikh Abi indi fa sëñ Abdourahmane Fall Baye Ndam indi fa Alaaji Seck ak lenn ci doomi taalibe yu mag yi yëpp kon kooku foofu la ngërëmul sëriñ Fall li tàmbale woon ci moom ci mat gi mat ci kam fa jëkk a yóbbu ak nam ko def ba àttan fa yóbbu ñeneen loola tawféexi sëñ as la ci sëriñ Fallilu te boobu mooy sëriñ Touba la ko ñaareel muy lii sëñ Mbàkke Abdou Rahmane wax ci ni mu daan jàngalee jàngeen wu rafet toog naa benn ajjuma dem di nuyu ji sëriñ Fallilu ba ma demee ba ma ko jubee rek booba dafa nekk ci aw tàngoor ànd na ma ñeneen ci sama sama ñi ma àndaloon mu dàq ñu daal dem leen ci daara ji jàngit ngeen ngeen ba ngeen taxawaalu bañ dee ba ci bunt ba ca kersaam ga mu dabluwaat na ban dëppee lu ngeen doon dox fat dama fat doon teel a ajjuma kat tey du jàng wax ngeen dëgg lu ngeen lu ngeen doon dox ndax xam naa ne ah, bu du bisu ajjuma sëñ as du leen bàyyi mu ne ko man de dama bëggoon lu ma jënd ab risaala mu ne ma risaala risaala eh, loo ko dee ko lu alxuraan naan risaala man ne ko ah kay nun dañuy def ku wàcc tàmbalee jàng xam-xam mu ni ma nga ni lan ma ne ko waaw mu jox ma ñaari téeméer ni ma demal ci gigis gi boo demee am nañu fay jaay ay nga jël fa nga jël fa di saale indil ma ma dem ci gigis gi jënd fa ab jël fa ma ab ab ab ab maqaama indil ko fi mu tëdd ci kaw lal bi mu ni ñokkee jóg téye maqaama bi ni fi ne yaa fi ne ci fii ma ne ko waaw mu waaj waaj waaj as jaxati mi jàmbaar la di waaj waaj kii jàmbaar di waaj ji kii di bu ñëpp defoon ni moom lii sëñ Fallou seereel na ko daal ni kii di sama xel dal na ci moom bu baax a baax a baax a baax daal di ma ci jàngaloo fekk boobu tàmbali naa ko dama ko amagul mu laaj ma ci ay ay baat mu wax ko risaala boobu ba léegi mi ngi sama kër mi mi mi mi ma deñ kon nun ñi fa jànge woon ñëpp ñu ngi koy sant di ko gërëm ci barkeel gi nga xam ne dañ fa jëlee ci xam-xam ni ko si suñu ba Boussa waxee lim néew-néew barkeel na ko ndax jëmm jooju nga xam ne moom moo moo moo moo doon kilifaam di sëriñ am sëtu jàpp naa ni lii ñuy tudd ci tudd ci daara ca làmmañu woowee la jëkk a jaar ndax moo daan wax naan maam Mor mooy magum daara ji te booba wàcceguma alxuraan kon bu ñu demee ba di ma tudd ji ma ci yónni xëy na baat boobee ca la ko dëggal dëggal na ko te ñoom dañuy gis seen gis dafa xaw dafa sori kon noo ngi sant bu baax di gërëm bu baax ni ko sëñ Cheikh bu sa waxee rek noonu laa koy waxee foofu laa dalee baa foofu laa defee lépp xam-xam ak lépp fa laa ko jànge amu beneen ustaas bu dul moom kenn mësuma tëral tëral ab téere ku dul moom